loolu mooy li am bon dañu bëgg tamit borom kër gi ci yaraata meram ci njabootam na yem ci biir kër ga su génnee nekk soppe waaw mais am na ñoo bu ma laaj ko pourtant kenn du ko xam du ko xam boo ko waxul la la du ko xam te boo ko suturaal la yàlla suturaal la yàlla seen tongoo wante na yem ci biir kër gi te bu mu paasee fan yonent bi bu paasee ñetti fan am na ci ku ñàkk sens ci ñoom waaw am na ku ñàkk sens ci ñoom waaw ci ci mbir mi seeree ci moom te nanguwul juboo am na natt bu koy daal gis nga nattu nag Abdoulaye Jafar Sadiq benn sëtu Seydina Ali Talib dafa wax ni temps tooñu tooñu tooñu biir kër bu dee jigéen bii toon amul xel àq ba ci ay waajuram lay génnee ji bu dee kii tooñ xamee bul lu mu def ci ba yàlla ci ay waajuram la koy génnee ji du ne mukk ci kaw suuf dafa faari moo ko wax li mu bëgg a wax mooy amul benn tooñ buy reer àq bu rek parce que yàlla bi may tudd àq tuddee tuddee ci garaam da tàmbalee garaam wala boo de plus petit gramme ci la tàmbalee lu gën tuuti gramme ci la muy atome te borom xam-xam euh, am euh, tantaaw yu nee na dañ ko laaj atome naka la toll atome mu ne benn atome benn maanaam juróomi euh, te yàlla bi muy tudd àq la tàmbalee kon atam amul amul màndarga ci àdduna bi xanaa boobu barka dee moo njaay bi taw bi génnee ay bombe atomique bi dina noonu te kon li li li moom moo ko moom moom ndaw si mais du tey li la waroon daf lay war ba léegi mais soxna yi nag neex nañ jubal ku góor kii sooy joxe na joxe ak yar wane ne li ngay joxe bu doon milliard xel nga mais feeg yaa nga naw li ngay joxe ci kër gi rek kii yaraate ni nga yàq yaram fexeel ba loo joxe xeeb ko doonte doy na sax xeeb ko waaw loo joxe rek xeeb ko doonte doy na xeeb ko parce que naf yëpp na naw ay yëpp baaxul boo ko nawee rek mu yàq lu bari la la melante ba waxoon ne su yéen taal Suleymaan ba mu koy jox addiya melante ba dafa doon addiya Suleymaan ne ko su fekkoon ni nga toll lañ lay joxe addiya kenn du la jox addiya mais ni toll lañ la koy joxe waaye yàlla su fekkoon ni mu toll lañ koy jaamoo kenn du ko jaamu yàlla kenn mënu ko jaamoo ni mu toll kon nag koo war a jox addunaa bi ci biiram soo ko joxee dara nan ko rey nga ko bi ci des bi ci des mooy seetal eh, bañ lay may soxna xam nga ku mel ne Nduga Kebe yàlla yàlla yërëm ko kattanam yeggoon na ci may milliard waaye gis nga bu mayoon milliard ba pare bu demee ci jàkk ji dañ naan may nañ ko ko waaw seetal fooraay bi loo mën dépensé ki dépensé milliard ak ki dépensé deux mille francs ñoo bokk àtte may nañ ko war a ñuy wax pour wan la ne am na lu yàlla def ci ñoom loo xam ne loo def ci ñoom rek teg ko waaw te boo ko joxee na nga ko joxee te gën daa répété jox yin parce que jox yin dana yàq joxe joxe yin am na façon joxe yin boo xam ne dana yàq joxe waaw xam ne noonu boo ko joxee nit rek mu genn dootu ko bëgg kon yow miy joxe bul yëg ne yaa ngi joxe boo ko yëg waaw xamal ne ki nga ko jox ëpp na li koy mais ñu ngi ko jox ëpp ko la may nit a gën a foole ngay seer la déglu xaala laahu xaala rasul jar naa gërëm góorlu ci li nga ne woo jàmm yàlla ñuy wax xaala laahu xaala rasul man mii de sama première conférence ba aw ma lii kon yàlla na la yàlla fay yal na la yàlla jàppale jigéen ñi fi ngeen teg seen tànk foofu la dool leen benn bañal xaajaloo jërë ngeen jëf. jërëjëf xalifa asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, ju gàtt rek mënoon naa ñàkk sax wante loo def daaw mu jig la nga def ko ren rek di ñaan yàlla may ñu ko ñu koy def ay at yu baree baree baree bare ay kàddu sant ak ngërëm kàddu sant ak ngërëm di ko jëmale ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ngi ci Chérif Abdou Moutalib Tijani ñu koy jottali suñu ziar ak suñu nuyoo euh, ziar waa cité bi yëpp nuyoo waa bi yëpp ah ñu ngi nuyu di ziar imam Sall moom moo jëkk ñëw tey fii dem toog ci jàkk ji moom mu ngi soññ jigéen ñi naan leen génn leen di gërëm ñi nga xam ni ñëpp macha allah jàppale nañu ci conférence bi jàppale nañu conférence bi ki nga xamante ni bii moo daaneel kàddu gi. di DG ARTP Abdou Karim Sall ñi ngi koy gërëm jàppale ci conférence bi suñu paré yi nga xamné yone yónnee lañ delegasi ñëpp carte ñi téw ak ñi téw délégation maire ñëw na ma dem ñu ngi leen di gërëm gi leen jéem damay faral di wax nak péccum lir su nexé ya jaay japp ci mbagg yi ya. ñun dañuy ñaan yalla di gur ci suñu diiné ndax boko amul amul lo lenn suñu xam-xam mëna naa baña baña bari nak wante li ci xol yi yàlla xam na ko te li nga xam ne moom la ñu jiital ci góorgóorlu suñu diine fas yéene du ñu def lépp loo dara loo xamante ni bii dañ ciy waroo ak suñu borom kër yi kon nag dañu jàpp ni lii buñ ci amee ndam ak doole ren jii tey muy suñu treizième édition wala suñu quatorzième édition suñu borom kër yi ñooy suñu ndëgërluwaay ndax kenn ci ñun rek borom kër tere woon doo génn sa kër ndax loolu dañu jàpp ni loolu lañu suñu diine sas kon nag ñoom cant ak ngërëm du ñu mësa a bàyyi di leen ko defal vraiment macha allah ñu ngi leen di gërëm di leen sant di ñaan la ñuy am ak ñoom ci njaboot ci kër yépp nag ci biir Sipres ba mu law ci suñu ay mbokk yu fi dëkkul lu law ci suñu ay cofeel yu fi dëkkul tey jii nga xam ne ñu ngi waxtaan ci yaru xale yi ndax xëy na yenn saa yi way juru xolam ñox-ñoxi mu am lu muy ragal wante ragal ci weddi yàlla la bokk ndax ñu ngi góorgóorlu yal nañu yàlla yaral kon nag ñoom njaboot gi ñu bokk ak ñoom ñu ngi ñaan yàlla njaboot googu yàlla na barkeel ñoom ñuy wayjur yu góor yi coono buñ ci am kër yi ñu jënd facture courant yi ñuy fay facture ndox yi ñuy fay depanse bi ñuy génnee yàlla nañu dund ba xale yi dinañ ko sargal ci barke yonent bi barke Cheikh Ahmed Tidiane Chérif barke Salatul Fatih man nag damay gërëm jigéen waa CIPRES xalifa wax na ko léegi benn nit mënul dara conférence bi gaat ñu ngi nii ñi ma ciy waxtaanal dama leen naan bu leen ci tiit bu leen ci jaaxle lu fi waaye indi asaka yéene la ndax kon dañ ci am ñaan conférence bi dañ ci am ñaan te ki ñu ko ñaanal dañu am ci moom yaakaar dañu am ci moom yaakaar conférence bi ëlbatiku yaatu nag macha allah ba nekk conférence jigéenu Sipres yépp li ñu am tey dañ koy mbége parce que li ñu am tey day wane ñun ni ñuy dunde ci lislaam koku tam di suma cham lañ di soog exi conseiller Seydou Diouf ñing koy gëreum diko dalal bismillah ñing leen di dalal man damay bëgg sumay wax sax di jàkkaarloog jigen ñi ndax li lepp yeen la lii lépp yenn la macha allah nañu jàpp na gën a dëgër bu ñu bàyyi euh, maanaam li tubaab naan rien ne tout se construit boo jàppee ba yaakaar ni naagu nga rekk am lu la rëcc kon nag damay faral naan suñu dëkkuwaay bi dara ñaawu ci yenn saa yi nit ñi toog lu yàgg bu ñu gisante mais yàlla xam na li ci xol yi en tout cas ci jigéen ñi macha allah dara ñaawu ci kon nag yàlla nañu yàlla jàppale. yal nañu yàlla fal cat ak seytaane ak musiba ak bala yal nañu yàlla musal ci gàcce ak yaakaar bu tas yal nañu yàlla musal ci dog-dog vraiment ñu gën a jàpp ci conférence bi man de sama xel dal na ci conférence bi ndax loo xam ne dañ ci am ñaan am ci ndigal soo gëmee tuuti rek doo ci mës a ragal saa yi ñu koy def nag dañu naan ah nu muy demee lu ñu cay am ndax conférence bi moom mooy conférence boo xam ne kenn du ko cotiser kenn du ko nattal te macha allah ay xéwal yu baree bari da ci ñëw toujours kon loolu mooy wane ne conférence bi am na ñaan. kon jigen ni si fess jappalante bu len baye nañu gëna a gorlu gëna a gorlu ci njabot gi gëna a gorlu ci diine yi te xamni yalla jigen ñi la andal ñun lolu buñ ci gorlo tuuti rek mbir yi baax ma ngi gëreem di sant ñep encore une fois de plus di remercier sama frère Seydou Diouf mi soog a ben point lañ dencaloon jigen ñi rek mom lañ wax te yewé ko may waa CIPRES ñi ngi lenay gëreem wax deug yàlla sen taxaway rafet na torop yëg nañ ko ak sunu xol mom lañ bëggoon tejé mom lañuy tejé tëjee bon bëgguñu hon dem rek mana wax ba jeex njëkkee ko ñukay fàtte dañ ko bëggoon tejé mais xam ngeen li leen yàlla may yéen waa si presse njabot mam aradji malik si ak mam Borom Touba ak Cheikh on Foutiyou ñëpp té nañu fi defena naa dara dakk ko tàmbali bi neexna mu jëntal bi neexna bi ñuy tàmbali ñoo waa Maladji Malick Sy la wala bu ci milieu bi ñu ngi tëjee ànd ak mbi euh, ñuy tàmbali ñoo waa borom Touba maam borom Touba ñuy tëj ànd ak waa kër Maladji Malick kon loolu mooy seen signature lii ngeen mérité nag moom la leen yàlla defal seen pas-pas ak seen yëngatu ak seen góorgóorlu moo leen may li ngeen am yal na la yokk leen kattan présidente ñu ngi leen ay gërëm ñun loolu leen bëggoon tëjee dañ koy débattre mais affaire na ba pare yaa sa waa daayira yal na yàlla yokk leen. gis nañu ni ngeen ni ngeen bëggee l'islam bi et loolu moo tax Abdou Moutalib am ci tawarte kii fu mu taxaw rek Abdou Moutalib mu ngi fa toog ci ndigalam la fi ñëwee ak ak ñun ñëpp ci ndigalam lañ fi ñëwee fekk leen ci ndigalam kon yal na yàlla yokk yëpp ngeen am kattan ci gën ko mën a def bi jaxee rasulillah te am nañ ci yaakaar baax a baax tëj bi rek moo ko rafetal arab dafa wax ne ahsanul amali xawaatimuha liggéey boo gis rek fermeture ba moo ko moo ko kon nag surtout alaaji Maalik lu mu tëj loola am na yaakaar ah imam Tall ñu ngi leen gërëm imam ñu ngi lay gërëm taxawaay beeg ñun ñëpp rafet na macha allah gay yal na yàlla yokk seen taxawaay maag ñi mu àndal président bi ñu ci topp lépp ñu leen ay gërëm di leen sant wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu